bismillah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa asxaabihi ajmain ginnaaw bu ñu santee sunu boroom subhaanahu wa taala moom mi nga xam ne moom rek moo yeyoo ñu sant ko ndax li mu ñu defal ci ay xéewal dafa baree bari ba mënuñu koo lim sunu boroom a ngi wax wax ju rëy mooy yàlla mooy ki nga xam ni moo ñu defal li mu ñu defal ci ay xéewal lépp te saa bu ñu jàqee tamit nag ci moom la ñuy dellu ndax koo xam ne li nga yor ci ay xéewal moo la ko defal te boo amee problème ba déegi moom nga koy waxi jàpp naa ni kooku ameel nga ko njukkeel lu rëy ci sant ko gërëm ko bañ koo moy te di ko topp noo ngi ñaan sunu borom bu la ñu xirtal ci lépp loo xamante ni moo nu mën a jariñ ci àddina ak ci àllaaxira yàlla dafa dogal subhaanahu wa taala ci baaxe gi muy baaxe ay jaamam nuy góorgóorlu di yëngatu ci loo xam ne mën na leen a jariñ ëllëg buñ dajeek seen borom ndax fii dañu fi romb kër jaarukaay la waaye du kër ak saxukaay lépp lu fi nit mën a fàggu loo xamante ni ëllëg kat bu la say mbokk bàyyee nga wéet ci sa biir bàmmeel maa nga taseeg sa borom ca fam lay xisaabee nga mën a am ci ay jëf yu baax yoo xam ni doonte sax doy na waar waaye dina neex a présenté fa kanamu suñ borom su ko defee nga daal di jafandu nag ca yërmande yi suñ borom yaakaar ko ndax ku yaakaar it war nga am ci loo sukkandiku. yàlla dafa dogal fii ci réewum Sénégal bi ñu gisee ni lu jëm ci ay jirim ak di sonn ci ñoom ngir xadis bi yonent bi wax ni man day màkki jël jirim yar ko yor ko toppatoo ko ñooy dendee comme ni ñaari baaraam di dendee ca àjjana nu gis ni jaamu yàlla gu rëyangoog goo xam ni wax dëgg yàlla xëy na duñ ñi kenn yëngu ci waaye mën nañoo wax ni yënguwuñ ci lu toll ni li ñuy yëngatu ci yeneen jaamu yàlla yi juróom benni at ca gannaaw xalaat bii mi ngi ñuy dikkal ñuy xalaat ni ah nun de waroon na noo fexe ba am kon comme fànn gi ñu yëngu mooy daara am daara joo xam ne ay jirim rek ñoo fay mën a jàngee ñu yor leen yar leen ndax kat ñaara nga ko yor ak yar dafa am solo ñaari mbir la yu bokkut yar gi day yóbbaale njàng ma yor ga nag mooy toppatoo ko ceg dundam akuk colam lii may wax nii mat na juróom-benni at ca gannaaw xalaat bi ah sunu borom dogal ñu gëm xalaat bi lool te di ko sabablu te di ci ñaan yàlla nag jàpp naa ni waxtu wun yaakaar ni bi waxtu nangu ñaan la barab buñ mas a dem bu nu jàpp ni bii kat ku fa ñaan sunu borom yàlla dana ko nangu ah jumtukaay yi nga xam ne nit dana ko sukkandiku ci ñaan ñu di ko def ngir yàlla sottal loola ba yàlla dogal ñu am benn barab boo xam ni ñoo ko jënd ci li ñu yàlla wërsëgal fas yéene ko faa def donte barab bu tuuti la nu continuer dox rek tey ñaan yàlla tey sabablu ba yàlla dogal ñu amaat beneen barab boo xam ni moo ko gën a yaatu ñu ni fomm nañ barab bu njëkk ba def ko ca barab ab ñaareel ba incha allahu la ñu nar yàlla dogal ci lañ jug def ay sabablu fekk lu ko jiitu sax xaaruñu am ab barab waaye daara ji nga xam ni moom la ñu yore jéem nañ cee jël ay jirim lu mat fukki jirim ak juróom ñi ngi fi xëy na lim mi nag tollu woon noonu dañ doon def benn par benn jël ñaar ñett di dem ba agsi ci fukk ak juróom fi ne fukk ak juróom ñi ngi ci daara ñoo xam dañ leen a mboros ci biir daara ji rek di leen yoraale ngir mbébét mais bu yeggee alhamdulillah bu yeggut it fekk yéene bi moom àggoon na te amoon nañ yéene def te yàlla moom moo gën a xam li ci dënn yeeg li ci xol yi sunu borom dogal ñuy def ay demande ci barab yin yaakaar ni mën nañ fa amee financement ngir tabax ginnaaw buñ jëndee suuf sax ci lu ñu yàlla war sëgal ba yàlla dogal sunuy mbokki jullit yoo xam ni ñu ngi nekk ci réew mu ñuy wax Koweït ci sababas cheikhana wa habibana docteur Mouhamed Ahmad Lo ñu déposé woon ca moom ba mu am ay gan yu jóge foofa xam naa mu gaaral leen ko ñoom it ak lu tolloog dogaluk sunu borom subhanahu wa taala ñu sàkk woon dañoo bëgg a ñëw pour gis barab ba nan la mel ah ca lañ leen xaar ñu ñëwal seen bopp ñoom ñoo ko financé ba yegsi ca barab ba bi nu yegsee it ñu laaj ñu lan lan ci jublu ñu wax leen ko lan ca bëgg ak lan ca jublu lépp xamal leen ni leen gënu leen ñoo bëgg aw yiw waaye da ngeen nu ëpp ay moyens rek waaye xalaat yi def lu baax mi ngi fi wax dëgg yàlla ñoom it ñu kontaan ca lool wane seen ak mbégte ba wane ne sax yaakaaruñu woon ni xalaat yu mel nii ay ndaw yu nekk fii ñu ngi koy xalaat malgré li ñuy ñàkk-ñàkk ay moyens ñu xamal leen ni leen xalaat yi moom benn la njàngum lislaam it menn la xëy nit ki day am ay moyens yu mu defee lu baax wala mu ñàkk ko rek ca la suñu borom dogal ñooñu bi ñu delloo defe naa matut ñaari weer lu dut suñu borom sottal ñu am lan doon wut ca ñoom mooy ñu xamal ñu ni barab ba insha allahu ñoom danañ ko financé danañ ko defar te barab boobu ñuy gis noonu moom la yàlla subhanahu wa taala dogal fa la nekk am nañ fa dëkkuwaay boo xam ni mudir moo cay dëkk ak jàkka joo xam ni incha allah jumaa lay doon ak barab boo xam ni dëkkuwaayu ndongo yi lay doon ak ñaari classe yoo xam ni dañ cay jàngee sunu borom yàlla dogal subhanahu wa taala ñu tàmbali liggéey ba comme niñ ko gisee noonu daanaka yëggagut waaye daanaka yegg na ndax ñi ngi toll ci jeexintal ba yéene bi ñu amoon it mooy bu sottee nu wut fa ay ndongo yoo xam ni ay jirim la ñuy doon muy ay góor ak ay jigéen ci at yu ndaw man leen a yar man leen a yor di leen jàngal di leen jàngal seen diine di leen jàngal téere yàlla bi di alquran jéem ca lañ ca ban daal la ca des nu bàyyi koog suñ borom suñ borom dogal na alhamdulilah su ko defee liggéey la boo xam ne liggéeyab lislaam la dees na ci tàllal loxo it bépp mbokkum julit moo xam ne lu mel noonu yitteel na ko ndax liggéey la boo xam ni kaay ñu bokk wut tiyaaba la waaye kenn defalut kenn nag bu soobee yàlla du liggéey bu ñu naan da ngay dimbali diw wala da ngay nangam déedéet liggéeyab kaay ñu dimbali suñu bopp la ndax gone ya fay nekk du du ñuy tànn ñu nekk suñuy mbokk ay gone la ñuy doon te ay jirim la ñuy doon te kenn du ca fay sikk nekkul ci ne danañ lekk danañ naan danañ feebar war a faju danañ am ay soxlaa ki aajo barab bi comme niñ ko gisee it ci àll ba la nekk courant yeggagu fa kon jàpp naa ne lu mel ni solaire dees na ko fa soxla te loolu mooy aajo ji gën a jëmp ji nga xamante ni fi mu nekk nii moom taxaw na temm centre bu mel nii ku ko gis jàpp naa ni donte ñaari solaire danañ ko fa soxla kon loolu mooy aajo joo xamante ni jàmp na lool ndax mënta xaar ndax ay gone ñoo fay dëkki la ca desit mooy gone ya fay nekk amuñ ñu leen jël en charge lu dul nun nooy jéemal suñu bopp lañ man nag la ñuy def duñ def luñ mënut mbokkum julit mu jógit jàpp ni mën na caa bokk ci nañuy wutee tiyaaba comme ni ma ko waxee kenn defalut kenn ku nekk sa bopp rek ngay defal buntu la boo xam ni kon tijji nañ ko jàpp ni warees na cee mën a dimbalante ba bépp mbokkum julit moo xamante ni sunu borom dogal na mu mën caa jàpp nam cay jàppeek nu barab bay demeek yooyu yëpp xëy na laaj nay détails yoo xam ni ku ci jokkook ñun incha allah danañ ko ko leeralal waaye lépp solo daal mooy buntu la boo xamante ni moom kenn defalut kenn ku ne sa bopp ngay defal ak la lay jëriñ ci sa bàmmeel ak allaaxira gone ya fay nekk du doon sunuy bokk waaye ay doomi jullit la ñuy doon ñoo xam ne seeni way jur dañoo génn àddina ñu jàpp ni yiwu rëy rëy rëy nekk na ci bokk na ci li yenteel wax ni man ak ki yar jirim di ko toppatoo ñooy taqaloo comme ni ñaari baaraam di taqaloo ci ajana bokk na ca kër gi gën ci kër te loolu yonent bi moo ko wax sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci xadis bi mu naan kër gi gën ci kër yi mooy kër gi ab jirim nekk ñu di ko toppatoo bokk na ci kër gi gën a yées ci kër yi mooy kër gu jirim nekk ñu di ko sàgganee bokk na ci ngëneel yooyu yent bi wax benn waaye sa xol bi dafa dëgër da nga bëgg yàlla nooyal ko mu ne ko waaw mu ne ko raayal bopp jirim nga toppatoo ko ak yeneen i xadis yu bari yoo xam ne rot na ci ngëneeli jirim ci di ko toppatoo ca lekkam ci naanam ci soloom loolu daal lanu amoon yéene ci barab bi bu dee sopp na suñ borom yan jumtukaay wala yan moyen la ñu am ba jàpp ni mën nañoo taxaw lii yaakaaruma ni am nañ jumtukaay bu gën a rëy ndimbalam yàlla subhanahu wa taala ndax comme leen ko nettalee fa mu tàmbalee ba yegg si fii ki ko doon yombal kookaay continuer di ko yombal bu soobee yàlla su ko defee li ñu yàlla war sa gëlakus néew ci la ñuy jéem ak la ñuy jéemantookus néew di ca yaxantu di leen ca dundal même bu doon juróomi nit lañ mën a yorit ñu yor ko su mbokkum jullit ñëwoon nag gis ni moom kat bëgg na yiw comme mën na caa bokk bunt la bu tijjeeku ngir ñeel ñëpp su ko defee nan la ñu def ba jàpp ca loolu ay détails la yoo xamante ni incha allahu nun danañ ko leeralal képp ku ca bëgg a bokk ku bëgg a am aw yiw danañ leen jàppale tamit ci condition yoo xam ni jàpp naa ni gone yi seen baay di dund ak ña ñuy fayal ca daara ya ñuy fayee duñ leen gën a dund te it danañ jéem lu ñu man ci ñoom kat dañuy ñee dañ leen di ñee waaye ñoom duñu ñeeaate danañ jéem it nag mu nekk loo xam ne luy sax la même nun bu nu faatu woon it dees nañ ko teg ci aw yoon woo xam dana mën a continuer ba li nuy ñaan yàlla subhanahu wa taala ba àddina di tukkit mu nekk loo xamante ni dafay des aman na buñ ko fekkee wutit nag na fekk lan doon def na sell ngir jëmmi suñ borom ji ndax lëggéey lu mu rëy rëy rëy bu fekkee nit ki dafay def te jëmmi suñ borom ji taxul dafay perte loolu moom ñëpp xam nañ ko wala ku xam dara ci diina xam na ko su ko defee nuy ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni mooy dimbale jaam bi ba ak ay jëfam sell borom bi dimbale ñu ñun ñëpp ba lépp lu ñuy def jëmmi suñ borom ji rek mu tax ndax lu mu néew néew néew néew te sell moo gën mu bari ci sellut ndax yàlla day ful te lu sellut du ko nangu beneen bi it ñuy ñaan borom bi nga xamante ni moo yombal ba ñu yegg si fii mu def yeneen i yombal ba ñu yegg fan jëm ci barab bi bokk ci barab yi gën a barkeel yi gën a rëy yi gën a taxaw ci di jàppale ay jirim ci Afrique sowu jant gi lii daal ci gàttal mooy liñ ci mën a leeral ah su ko defee incha allah léegi tey mu daal di tàmbali mbokkum jullit mu jàpp ni moom gis na ni kat bëgg naa wutiwu yiw te mën na caa bokk na muy def bokk ca incha allah dees na ko ko wax lépp loo xamante ni nit ki def na ko ca it loola boppam la ko defal kenn dimbaliwut kenn bu soobee yàlla ku ne sa bopp ngay dimbali di ñaan sunu borom mu boole ñu dimbali ñun ñëpp wa sallallahu wa sallama ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم